mu lu lu lu ñaw dem nañ ba tubaab yi seeral ko ko ni c'est un fin stratège yooyu jamono information moo njëkkoon a jafe xam fu sëñ bi nekk rek at yu njëkk yi moo njëkkoon a tëj ñëpp kenn xamul woon fu sëñ Tuubaa nekk Cheikh Ibra ci diir bu yàgg ci diir bu yàgg mhm. waaw Cheikh Ibra nag stratégie ba mu teg mooy taalibe yi mu àndaloon ndar ñoom la yóbbu ñu infiltrer tubaab yi administration coloniale bi loolu moo ngi salaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatuhu soxna yi ñoom ñu bere ñu ñu mm-hmm. la sëñ Mamour mm-hmm. ndax moom li ñu fi andi moom tey incha allah ci kanam mbokk yi dinañ ko mm-hmm. a kàttanal ak nga xamante ni ñëw nañ eh, fekkee si jotaay bu tedd ni ñu ko waxee di lambinaas sëñ Cheikh nga xamante ni buñ ko tuddee eh, maanaam eh, ñenn ñi xëy na dinañ xam waaye ñenn ñi xëy na di am loolu sumb boo ñu doon fàttali lenn ci histoire bu Lambinaas tur la boo xamante ni mooy turu goxi Ndakaaru njëkk indépendance mhm. ndax euh, bi indépendance amee tubaab bi ñëw lu turu goxi Dakar mu li ñuy wax quartier ci français ci la ci la soppeeku mhm. waaye bu njëkkoon Lambinaas la ñu doon wax ak ca démb mhm. Lambinaas nekkoon fii nga xamante ni mooy palais de la république euh, hôpital principal jàpp euh, place de l'indépendance yu ñuy wax ca déem nekkoon pharmacie ko ba ci marché Sandaga donc bërëb boobu di Laminas fa la maam Cheikh Rafal jëndoon kër euh, loolu ba mu koy jëndit moo ko jëndin boobu sëñ Tuubaa mu ci géej gi mu jëndoon ko mu jëndoon ko defoon ko titre foncier bërëb bi muy dëppoo ci jamono jii ñu toll fii nga xamante ni mooy primature mhm. moo dëppoo ak daara ja di fa maam Cheikh Rafal defoon Euh, li tàmbalee Anse Bernard une partie de la corniche est palais de la république building administratif loolu moo nekkoon euh, tool ya mu nga xam dafa daan def maraîchage doon fa tarbiya taalibe yi nga xamante ni moom la daan yég yeggale ci yàlla euh, am nañ ci ay seede kilifa yu mag a mag a mag yoo xamante ni ñu ngi fii dakaar seen i wayjur yu góor wax nañu sëñ Cheikh Bintu ni seen jur yu góor ca daara jooju lañ nekkoon waaw ay kilifa yu mag lañu Euh, dañoo amul nag seen digal moo tax xam naa mhm. dina dis trop pour ñu tudd ko waaye sëñ Cheikh moom wax na ma ni ma mhm. toog naa kilifa yooyu ñu ne ko seen wayjur wu góor ci daara maam Cheikh Rafal boobu la la nekkoon seex mhm. Ibra Fall jëndoon ko defoon ko titre foncier mu nekkoon suuf su yaatu euh, keroog 1902 bi Serigne Touba wàccee fii ci waax Moussa Siri mhm. tubaab bi boole ma paata Mbay mu nekkoon benn fonctionnaire ci administration coloniale bi mhm. paata Mbay yóbbu ko kër gorom ba mu monsieur Diagne mhm. ba mu fa demee ak magi Ndakaar yu doon ñëw ak dignitaires yi doon euh, ziar sëñ Touba ak doon saafonteeg moom kër ga nekkin wax xat ci sëñ Touba maam Moussa euh, maam Cheikh Rafal fekk fa sëriñ Touba boot ko ni ko maam Moussa Moussa Ka ci Jazawu Chakour yóbbu ko La Ménage ganale ko fa ñetti fan waaw ñetti fan yooyu nag moom la sëñ Cheikh Bintu di fàttaliku muy ngan gi maam Cheikh Rafal ganale Serigne Touba. Mhm. màggalul nag jëmmi ñibbisi gi ndax ñëbbi ñibbisi moo ngi am le 11 novembre mhm. waaye ngan gi moom moom la sëñ Cheikh Bintu di fàttaliku moom lay moom lay moom lay màggal. moo waral tey daje bi bis bi di le 13 avril incha allah samedi ci grande mosquée Massalikul Jinaan ren di cinquième édition bi. Euh, te mu ren bi di maam Cheikh Ibrahima Fall et la justice. Euh, ñu ne ko euh, Serigne Moussa Niang Kollu. nekkoon magi taalibe. di jàmbaar ci kër Cheikh Ibra. waaye fàttali ko waale sëñ Fallou Fall. daaw maam Cheikh Ibrahima Fall. nga xamante ne daaw moo nekkoon centenaire u disparition ñu bëggoon ko amal waaye ay xat-xati jamono taxoon ñu dàq ko ren nag ñu bëgg ko fàttaliku ci journée bi. nga xamante ni mooy nekk téeméeri at ak benn. disparition sëñ Fallou Fall euh, ñu bëgg a rendrale hommage Serigne Sidi Lamine Niass mhm. euh, di jàmbaar euh, ci di doomu daara di jàmbaar ci réew mi ak sëñ Aziz Mbacke mu sëñ Moudou Boussa Dieng nga xamante ni sëñ Moudou Boussa Dieng da ko joxoon sëñ Moudou Ablaye mu yar ko nekkoon wóllëre sëñ Cheikh Bintou te suñu borom jële leen fi yàlla leen yàlla yokk ay leer mhm. te dolli leen i ngërëm waaw loolu daal mooy bis bi mhm. ñu di ko abal Euh, ci ndigalu nag sëñ Cheikh bi mu amee xalaatu bis bi dafa yónni sëñ Talla ñaŋ mi nga xamante ni mooy xalifa sëñ Moussa Niang ci sëñ Modou Ablaye sëñ Modou Ablaye jox ko ci ndigal mu yónni ko ci sëñ euh, Cheikh Jëmm sëñ Cheikh Jëmm jox ko ci ndigal mu yóbbu ko ci mu yónni ko ci sëñ euh, sëñ siidi sëñ Sidi Mokhtar sëñ Sidi Mokhtar jox ko ci ndigal laaj ko ne ko fan ngeen koy defee mu ni ko ñu ni ko masaalik mu ni foofay bërëb ba mm-hmm. waaw donc kon bisum ndigal la euh, ñu di ko yàgg ñu di ko taxawal ren di cinq cinquième édition bi mm-hmm. ñu ñaan yàgg koo taxawal te mm-hmm. daje seen gërëm maam Cheikh Ibrahima Fall amiin waay lu am solo sëñ Mamour dellu si na kon ci lambinaas ñi euh, nga xëy ni xëy na xamee woon nañ ko noonu ak ñi nga xëy ni xëy na umpoon na leen di kon suuf su yaatu si nga xamante ni

réew mi en tout cas mm-hmm. da koy titre foncier mm-hmm. ndax na ku jëkk woon jamonoom la loolu dañ koy wax saa su ne mm-hmm. euh, euh, euh, sëñ Tuubaa wàcc 1902 mu dalal ko fa yaakaar naa ni ko Cheikh Moussa Ka waxee ma bàyyi la nga dalal Baye moo Fall waaw tubarkal la jërëjëf sëñ Cheikh macha allah moom de leeral nañu daanaka loo xam ne daf nañ ubbil bunt rek ñun ñëpp ci li nga xam ni moom nañ ko cee wax dolli ko ci ndax sax xam naa ne loolu doy na sakk ci rek ñu daal di xam ne kon li nga xam ne moo tax nu nu daje tey ci jotaay bii mooy fàttaliku ni mu ko waxee mooy ñetti fan yi nga xam ne Cheikh Ibra Fall ganale woon na ko sëriñ bi fii te wàcc gi nga xam ne Cheikh Ibra sëriñ Tuubaa wàcc na ko ci kër Cheikh Ibra mm-hmm. eh, waaye dafa am rek benn gis-gis bu gàtt dama ci am kon dama ciy dégg ne ndekete maam Cheikh Ibrahima fan bi bi nga xam ne ku tedd ki Serigne Touba Cheikh Fall defar na ko ba yabal ko ndar wàcciwu ko waaye da ko soppilu aw liggéey mm-hmm. Euh, ndax ba mu demee ci la doon jënd kër yi loolu nag la nga xam ne tuxale nañ ko ci waxtaanu ba ci am dafa wax ne Cheikh Ibrahima Fall neewoon na li taxoon loola mooy xam na ne tubaab yi bu ñu dellu sëriñ bi euh, ci bato bi dañ koy jaarale wala ci saxaar gi mhm. te nee na bëggut ñu wàcc sëñ tubaab guddi fenn muy tumurànke fu mu nekk mhm. kon loolu moo waraloon tey kër gi ci Lambinaas kon am nañ ci firnde ci ñaar ci li ñu mag ñi nettali mooy kër gi ci Lambinaas moom firndeel na ne sëñ Tuubaa wàcc na fi mhm. te sëñ na ko léegi bi nga xam ne yàlla dogal na sëriñ bi ñëw na 1902 11 novembre fii te waa kuréelu ma fàttewul bi sëriñ Maguette Diop ñoom di ko taxawu di leen ziar bu baax eh, a baax mhm. waaye tamit ca ngumba mhm. kër ga ca ngumba wax nañ nañu sëñ Tuubaa wàcc na fa bis boobee Baye Birame Thiam nee na moom la Cheikh Ibra Fall jox caabi kër ga mu ubbil ko sëriñ bi kon li taxoon sëñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall daan jënd suuf yi ñaar yi firnde la ci mooy ngumba ak fii ci la eh, te loolu itam moo sabab sax kër yi ngay gis yëpp ci wetu tefes mbaa gaar parce que fii xam nga ci wetu géej gi la Cheikh Ibrahima daan dàkk tefes mbaa gaar lam ci jublu mooy li ma lay mooy xam na ne sëñ bi ci saxaar lay jaar wala ci bato bi eh, moo tax loolu moo waral kër gee ca eh, Thiès xam nga ne foofu ci côté semaine de fer bi loolu moo waral tamit kër gi ci Kébémer xam nga moo waral kër gi ci Ngumba moo waral kër gi ci Louga fépp foo gis rek loolu moo ko sabab fii nag ci Ndakaaru Cheikh ibrahim Fall mom fi da fay def lo xamne dafa mad fatali sa sore xam waxna la Serigne Saliou Fall mi nga xamne moy rakam ñu bokk wayjur wu góor ak wayjur wu jigéen wax nañ ne bi muy dox fofu amna bis dafa taxaw ba mu yàgg mun a tànk tànkam dafa yëg na tanki dafa dis dekete bobu dafa yëg na ko tedd ki Serigne Touba Cheikh Khadim wàcc si na e waye Cheikh ibrahim Fall nak nim gungé Serigne bi non la ko gatando ndax moko gunge bamay dem waye moko gatando itam lolu moy wajjal gi moko wajjalon fi ci kërëm gi ci Lamine Ass ni nga ko waxee léegi rek unité 4 km la won waye Cheikh ibrahima Fall lu mas a moom lu nek lu mas a jënd titre français la leral nga ko legui et pour teunk rek ubbil bàyyi Modou Fall mu meuna dugg ci moy Cheikh ibrahima dafa fonkon ay këyit ndax wax nañ la signature am sax boo masaan gis da lay yému ci jamono jooju la ko sabab nak moy xam fi àddina mujj motax Cheikh ibrahima dafa teel a xam àddina xam na fi lay mujj mo waralon souf yëpp waye nak li ci gëna yémé té moy li tollu 4 km lépp tey jii doo ko ko tudd mu ko tudd Cheikh Ibrahima lu dul nettali histoire bi parce que soxlaatu fa dara li ma jubloo wax mooy moomatu fa dara mhm. la tax mooy sëñ Touba la ko joxoon mhm. sëñ Touba jox ko rakkam Serigne Cheikh Thioro ba tey mu mujj ci loxol tubaab yi mhm. eh, loolu lépp rek day wane ne ndax man kër gi ku ñuy wax Ibra Fall Barama Sele wax nañ ne bi mu doonee kër Cheikh Ibra Fall moo yoroon daara ja Baye Abdou Niang moo ma ne fanaan naa ci kër gi ba tey ba ba pale newu fi kër Cheikh nga xam ne lu féete ci ginnaaw lépp ay tool la woon di tooli dër si Abdou Sakkour Fall nee na mbayum noroñ fanaan Baye Abdou nag moo ma ne Ibra Fall Barama Sele moo te kii ma nettali eh, dund na fi lu yàgg ndax defe naa 13 wala 14 lay war a feeñ jamono. 1913 mhm. wala 14 du ko sori. Eh, ndeysaan ku ma ku ma yàgg sant ku yàgg sant sëñ Modou Abdoulaye sama kanam la ndax nee na ma saako ceeb ngay seen sa a mën a sëñ def bu jeex muy moo ko yoraloon dundam. moom Baye Abdou ak moom a nettali loola. Mhm. léegi nag loolu seede la xam naa ni ma ko waxee léegi rek ku am gën tëraan eh, xam naa danga ñu man a leeral. Mhm. maam Cheikh Ibrahima mu Baabul Muridiina ak wàcc gi nga xam ne wàccoon na ko fii ci La Ménace jëndoon suuf soosu ngir waajal ko sëriñ bi yàlla dogal na sëñ Cheikh nett na ko sëñ Touba ñëw Cheikh Ibrahima Fall jële ko fii wax nañ ne ci gannaawam la ko teg yóbbu ko fii ci La Ménace ñàkkul looñ ci waajalal loo ñu mën a indi ci diggante boobu loolu la moom maanaam dinañ ci mën a waxtaan ndax thème bi itam ki ñu yónni di sang bu tedd bi sëñ Cheikh Bintou am na thème bu mu jox muy diggante Cheikh Ibra Fall ak Ndar waaw ak diggante maam Cheikh Ibra Fall ak mbirum justice mooy li sëñ Cheikh wax wàll woowu sëñ Cheikh Diop mi mhm. dana ci ñëw waaye nag li nga xam ne lii moo waral màggal gi di bis bi di laminage it ah fa mu sababoo ba tax maam Cheikh Ibra wut kër yooyu yëpp di teeru sëriñ bi ngir bëgg ba mu ñëw ba mën koo ganale bégal ko mhm. da cee defoon ab liggéey bu yaatoo yaatoo yaatoo liggéey boo xam ne bi booba sëriñ bi mu ngi ci biir géej gi ah ñibbi si gi itam comme noonu ko sëñ Cheikh waxee rek ne la ko sëñ Moussa Ka waxee ndax dafa xam ne sëñ bi nit fan mhm. dib gaaw weeru sax mbaan mhm. dana jalañ di buusu mel ni saamaan mhm. ah tiijaan ya naan labba naan ko bamba yaa di ndaanaan tiijaan ya naan labbay ko say xusoo daan mu romb leen borom ndaram ndakaaru yebal ko kër ma paata ngir waaru boo seeni pexe jeex na ma paata mbay yóbbu ko kër gorom ba mooy Moussa Yées Njaañ bàyyi mboor faroom ba mu ne looloo taxoon mboor Njaañ tabax fa jàkk am na lu sin di waajal màgg Cheikh Ibrahima Fall daan la jaas fa Bamba daal di koy boot yóbbu këram mooy mbër ma mu ne bis ba Sëriñ Tuubaa fanaan see lambinaas mbég na nu mbég moo xam ne jooyloo na faraas murid yaree ba kekku bay taqaajoo di xàqtaay murid yee jooy di xaaju kon loolu mooy làmbinaas ah ginnaaw nag bi yàlla attee loolu am maam Cheikh Rafaal dafa nekkoon ci liggéey boo xam ne bii bi sëriñ bi nekkee ci géej gi da ko doon yëngu ca ndar léegi am na ci ay dog yoo xam ne yi sëñ da ko joxoon bi muy dem ndax bi muy dem maam Thierno Ibra Faati da koo dénkoon njaboot gi dénkal ko képp koo xam ne daa war a xam lu mu xamal ko ku war a jàng xam-xam samp sëñ daam Abdourahman Lo muy jàngale alxuraan ku mat daal alxuraan mu jàngal ko samp sëñ Ahmadou Ndumbe Mbàkke mbiram tool yi ak taalibe yi yoon wi la ko dénkoon muy wër taalibe yi di leen ñaax di leen soññ di delloo seeni xel di defal di leen defal bi loolu amee nag moom la ah, sëñ Basiirum ci mbindam laay sukkandiku moom la wax ne wakkaana Seexu Ibrahima Fall fi ndar boobu jamono nag Sëriñ Tuubaa joxe dog yooyu boobu maam Seex Ibrahima Fall ngi ci ndar yëpp asu an say xinaa waan ay daarin uwa ngi gëstu mbiram sunu sëriñ ak ki ban réew la ne ak ci ak ak ci man mbir la ne boobu maam Seex Ibrahima Fall mi ngi ndar di gëstu loolu ci diggam ak tubaab bi loolu itam damaa tënk nii rek am na lu ma ci bàyyeeg Seex Seex dina la ko leeral waaye ci kaw loolu itam wa uwa ma salika wa yursilu addaayal kasirati li seyxi ibrahima faati ci biir liggéey boobu yemut ci lijjanti rek lu dellu si sëriñ bi waaye teewut dafa nekkoon ndar di jël ay addiye yu bari di ko yónnee maam Cheikh Ibrahima Faati Mbàkke ca ca ca Mbàkke Bawol ndaxte moom sëriñ Touba da koo dénkoon moom maam Cheikh Ibra muy dimbali njaboot ga nekk fa maam Cerno Ibra Faati moo taxoon mu daan jël addiye yooyu di ko yónnee maam Cheikh Ibrahima waaw mu ne wasaalika anna say xanaa aw saa u bi ma onatil iyaali inda Cheikh Ibrahima dégg nga ko mu daal di wax ne wa wasaalika naka noonu ànd say xanaa naka sunu sëriñ te mooy sëriñ Tuubaa aw saa u dénkoon na maam Cheikh Ibrahima bi ma wonatal iyaali ci dimbali njaboot ga inda Cheikh Ibrahima Faty njaboot ga nekk fa maam Thierno Ibrahima Faty moom loolu la ko dénkoon waaye yëmu ci wa bi sillati man ak jokk képp koo xam ne kaana nekk na tal sama di war ko sillatuhum seen ak jokk moom sëriñ bi minal ak xaari bi mu tukkee ci bokki jegeñaal yi muy bokki deretam waas ci xaay yi diini ak diine yi ñi nga ñi nga xam ne bu fi sëñ Tuubaa ni woon moo leen war a jokk daa di gëloon maam Cheikh Rafal mu di ko ko jokkal moom itam mu doon ko jokkal mu ne fa bara topp na moom maam Cheikh Rahima Fall uwa moom ayda ba tey fii maa ci la nga xam ne ju ila na ko fii ca loola moom maam Cheikh Ibrahima Fall la ko suñ tubaa dénkoon topp na ko ba matal ko sëkk waaw sëñ Basiru ne fa inni naka man lam asal du ma musumaa dañ ata sàkkaru di fàttaliku tilkal ahmaali yooyu yëla sëf sàqi la suñu ngi di way diis la ciy ya nga xam ne kaana nekkoon na moom maam Cheikh Ibrahima Fall di ko yónnee ilaa Mbàkke jëmi ko Mbàkke bool mais duma dañ mukk di fàttaliku sëf yu diis maam Cheikh Fall daan jële ndar di ko yónnee maam Thierno Ibrahima Fall sa njaboot mais daaw ko daaw ko daaw ko duma dañ di ko fàttali moom sëñ Bassirou moo wax loolu hmm. waaye yëmu ci de wajjalaa ilul hadaaya u li say xi Momar Jaara ak addiya yu mag yu bari yu mu daan jël di ko yónnee Cheikh Momar Jaara mi nga xam ne moo sëñ bi ñoo bokk lépp ci saa yi nee na da ko na da ko daan jël di ko yónnee Mm-hmm. maam Mor Jaara addiya yu bari waaye lu waral loon loola li silati ngir ngir jokku rek jokku bokk wal birri akuk topp bind yaa baati ci fas yéene matal yéene sunu sëriñ ba sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul radiyallaahu anhu jokk gi mu waroon a jokkal boppam bu fi nekkoon mm-hmm. moom la ko doon jokkal ci magam jooju ci saayir ci wàllu bokk gi mu maam Saraay mi Faal waaye yëmut ci loolu wa attayaa ul jasilati ak ay mayam yu bare baree baree bëri yoo xam ne lil fuqaraa yi al munqatihiina muhaajiriina awtaanuhum nee na ay may yu bari yum daan yëkkati di ko jox woy ñàkk ña ñi nga xam ne dañoo dogu seen dëkk gàddaay ñëw ànd ak Serigne Touba. nee na lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo nga xam ne itam dañoo gàddaayoon seen i dëkk. ngir takk fas yéene taxawal diine te mooy yoonu murit ak kowel baatu suñu borom bi te ñooñu ñu ngi jógee ci njaboot ak sunu sëriñ min iyaali say xinaa mu ne lës yi ne gaañoo nga xam ne faq ñàkk nañ bi faq di ci ñàkk gi ñàkk sëriñ bi ci ñàkkuk sëriñ bi mu ma win moom aj aji dundal seen ñoom ñooñu dañoo gàddayoon ñu ànd ak sëñ bi te yàlla àtte na bi sëñ bi demee gisatuñ ko ñàkk nañ ñàkk goo xam ne gii la leen sëriñ bi daan dimbalee amatuñ ko moo taxoon maam Cheikh Ibrahima Fall itam daan jël may bari di ko yónnee waaw euh, sëñ Basiiru daal cee teg wa maa mbir mu màgg nag ak sara baril na maa la nga xam ne naa loo am na ko moom maam Cheikh Ibrahima Fall mi ne seyaati ay loraange nee mbir mu màgg moo xam ne mii ay lor yu bare bare bari yoo xam ne maam Cheikh Fall amoon na ko ci biir ndar lor yuñ ko doon lor wa si aayati yi ak yaatug lor ya nee na nag mbir mu màgg nag amoon nag ci mbir moomu ak muñ gëm ko doon muñ loolu nag ma bu ma ko seetee it sëñ Moussa Ka dafa wax sëriñ bi ca Mouhamadul Mbakki ba mu wolofal ba daf koo wax ne ko kiraamaa ki xar baax wilaayaa ki booti xol ku leen ma sa am sëlboo ku dul yow sëriñ Touba ku dul yow sëlboo ko dàkkoo ko rekki gëm di fàddee ko alkee ko yàqantee ko rey Touba nga yor yii nag te làmboo rahmatan laa i yaale wet li ngay muñ te man koo faj amoo kem sëriñ Tuuba daane ko ku lay suuru daf laa boo gees woon mu dee damul wub nga soodaan ak bayaadina ak Tuuba gouverneur yi ak soldat si xam nañ la baafali waaye commandant yi ak kàngam yi xam nañ la bis Tuuba ku ko tëkkalee ak xaw su moo réere ay ndax moo tëbb xaw su xut bu seen leeri xew Touba maanaam jikko joojee sëñ da da ko wàll maam Cheikh Ibrahima bi mu nekkee Ndar lor yee la muy tiis tiis ak la muy yaatu yaatu da leen a muñaloon jikko yooyu amul lépp amoon na baatinam waaye jëfandikoo wu ci yaatal ma ko muñam moom lay wax noonu waaw na ak ak bari gum bari ay murit moom maam Cheikh Fall ci boobu jamono ci biir ndar ay taalibe yu ko topp wa kasratil majaasi bihim ak bari guñ bari ay ma ay majaasib ci seen biir moo ñoo xam ne ay maj lañ nee na loolu moo war a doon yokkoon lor ji diñ ko doon lor ndax li ko waral nee na fi jam in dañoo nekk ci biir mbooloo moo xam ne laa yara foona déet ñuy xam ilal masaahiri nda rek lu feeñ rek booba biir mbooloo mi ñu nekk muy waa Ndar xamuñu dara ñoom lu lu feeñ saahir rek lañ xam waaye boobu xamuñu lan mooy baatin moom lay wax noonu waaw nee na lu feeñ lañ xam mu di mu di am xel mu rafet li tubaab di wax kayisatu mooy ak muus ñaw ñoom defe nañ ne lu feeñ rek moom mooy mooy li nga xam ne moo di moo di yeewu wareef aku dëppale wala yi ne aku nooy mu ne waaye nag wa maa mbir mu màgg de ax sama màggal na sabaruhoo mu ñëlam loxoo ñeel laxum ñeel leen nee nee na sëñ Bassirou ne mbir mu màgg ngoogu mu maam Seex Ibra Faal jëfandikoo te mooy muñ gim leen muñal muñ gu màgg la la la la la leen muñal ñoom waa ndar ñooñu ba ba jëfandikoo benn benn doole ci ñoom walla baatin mu ne allah annahoo na ko moom booba wax tamaalahoo yenu na lorja muñ ko ngir jëmm yàlla suñu borom subhaanahu wa taala rek waaye mu ci de wamaa ak la nga xam ne ak sartu baril na fawaiduhu ay njariñam àllihim ci ñoom booleeg di leen jariñ njariñ lu bari loo xam ne amut fenn fu mu yem amut ab dayoo loolu boole woon di leen ko defal ginnaaw ba mu lor ji yemu ca ba basala dana te muy yulli um leen ay mayam lu mu am ci wërsëg it da ko daan fab di leen ko jox di leen ko séddale ñoom waa Ndar maanaam danañ ko doon lor moom loolu leen doon fay <laughs> waaw waaw mu ne waaye nag bi mu koy def it allah ànd woon da rek naka moom jaa si mun aji boofu la allah say in ci mbir asimun mu màgg ne maam Cheikh Fall moom na ne ci lu wér la boofu <laughs> loo xam ne bu tostanee rek ñëpp xam ne tostan waaw min muraqabatil mawlaa mu tukkee ci fuglante ak boroomam hmm. xaw fan ci ragal yàlla wa ijlaalan ak màggalam nee ci loolu rek la saxul ah, ak màggal ko hmm. waaye nag walla mu yël saxut de dir bu néew antakasar bari muri duma talibim neena dir bu néew ña ko doon door ñëpp dagg ñëw ànd ak moom wa tabaho aho ak ak way topam moy murid yi nga xam ne ñew ñëw laxasaayu di liggey ak ñi djebulu di andi adiya comme sama classe gi ni ñi def ne lol ci bobu jamono ne dir bu neew la mom sa rafaal sax rek dal fay am lol mm-hmm. ci ko jikko mi rafet yoy rek waaw kon xana ñu ñu ñewat inshallah seigne mahour c'est indi na eh, eh, Cheikh Ibrahima mooy mooy ku tëdd yi jikko waaw du du njëriñ njariñ njëriñ kese la mu njëriñ kese la amul daray lor te soo déggee lii nga xamante baay moo Maodo indi na ko mm. ni mu doon jëflante ñi nga xamante ne waay ndar mooy euh, waa ndar nga xamante ni maam Cheikh Ibrahima Fall ab dëgg la ni ñu koy waxee waaye ren sëñ Cheikh mm. ngeen tànn boo xamante ni ñàkkul di nga si ñëw mooy maam lu ko waral ci jamono ji Baye Baye Maodo moom lay taan mhm. déjà jataay bi euh, ubbi na thème mhm. euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ak justice mhm. euh, suñ ko dee waxtaane faw ñu waxtaan waxtaane nekkul Cheikh Ibra Ndar ndax la ci ëpp Ndar la xewee Cheikh Ibra dafa ñëwoon doon model doon jàngale aw yoon ci lislaam Mbàkke Kajoor Cheikh Ibra da doon jàngale Serigne Touba ndax ni ni ni niñ daan toppee sëriñ moom ak li jàngale bokkul ndax sëriñ toole àllarba la ñëw laaj masa la boo paree nga dem ñibbi seen kër waaw Cheikh Ibrahima nag ñëw jàngale leneen mhm. euh, ba mu ca jógee ñëw Mbàkke Bawol Cheikh wane ni ni téye njabootuk sëñ bi euh, ba mu wàccee sëñ Touba yebal ko Ndar mooy ba mu bindee ñetti deel yooyu mm-hmm. laaj ko magi taalibe yi kenn xamu ko Cheikh Ibra ñëw ñu wan ko ñetti deel yi mu ni ndànd ndar ndakaaru mm-hmm. sëñ Tuubaa ne ko ndigal laa ngoogu del dox guddi yi tey dallu bëccëg yi mu yóbbu Cheikh Ibra Ndar muy le premier ambassadeur du mouridisme mm-hmm. moo njëkk a génne mouridisme en en de son fief originel muy Mbàkke ak euh, Kajoor mu yóbbu ko Ndar Ndar nekkoon la capitale de l'AOF à l'époque Euh, nga xamante ni ci civilisation li gënoon kawe ci civilisation ndar la xewee woon euh, se sëñ Touba yebal ko ndar euh, mu nekkoon fa ambassadeur noonu mu fa toogee yoon ci biir thème bi dinañ ko dinañ ko dinañ ko dinañ ko leeral waaye maam Cheikh Rafal ak justice sëñ Touba dafa wax benn bayit ci masaalikul jinaan wax ni wanzur bi aynayni ilayhim abada xayna shariati bi amrin بهدى واشكر إحسانهم إن إحسانوا وعين حقيقة وعين حقيقتي بالعذر عند شيني mu wax ni mbindeefu suñ borom yi da nga leen di xoolee bëtub charia ak bëtu xaqiqa bëtu xaqiqa bi moom la sëñ tubaa xoolee woon nasaraan bi ba jàppewu leen ay noon ndax xam na ni lor gin koy lor du seenu coobare waaye dogalu sunu borom la ndax yàlla namm na ci moom ay martaba ak i garaat yoo xamante ni munu koo am lu dul àndutak tubaab bi dem liggéey moo waraloon mu wax ni ah, sababu haybatiya an allaha arada an anala min huja wa an akuna shafihan li xawni wa an akuna xaadiman fi dawna dellu waxaat ni alamani rahmanu fi safina bi am na ni xaadima zil madina mhm. kon bët boobu bëtub bëtub xaqiqa boobu moom la sëñ Tuubaa xoole woon nasaraan bi xam ni ay jumtukaay lanu ci may yi ko suñu borom war a may ñom la wara andal liggey yoon waye cheikh ibra beutu sharia ba cheikh ibra mom la doon xolé nasaraan mo waral mu doon masla ak ñoom waaw cheikh ibra bi señ bi demee demee ci geej stratégie la tek bi mu nekké ndar muy lu lu ñaw dem nañ ba tuba bi séral ko ko ni c'est un fin stratège yoyé jamono information mo njëkkoon a jafe xam fu señ bi nekk rek at yu yi mo njëkkoon a ñëpp kenn won fu señ tuba nekk cheikh ibra ci bir bu yàgg ci bir bu yàgg mhm. waaw cheikh ibra nak stratégie bu mu tek moy talibé yi mu àndaloon ndar ñoom la yobbu ñu infiltrer tuba bi administration coloniale bi mhm. lolu mo ngi minanul badi xam baaxil xadim bu seigne bu seigne basirou bi mhm. ñu yobbu len ñuy liggéeyal tuba bi euh ak di len yenul ci marché bi ni len nak lu ngeen dégg lu jëm ci seigne Touba na ngeen ma andil ko këyit kayit boo leen gis ñu boxam ak lépp boxam ak lépp xotti bu leen kii andil leen andil leen ma bu leen tuuri donc boobu stratégie la njëkk teg muy <laughs> information fan la sëñ nekk donc bi bi loolu amee ñu dem di dem di dem ba mu xam ba ñu xam ni sëñ bi mu ngi Gabon Gabon leen ko yóbbu Cheikh Ibra jël taawam muy sëñ Fallou Fall nga xamante ni Ndar la juddoo mhm. nekk citoyen français parce que ci quatre communes yi nga xamante ni yooyu jamono ku ca juddoo citoyen français nga mhm. muy Ndar Gorée Euh, Rufisque mhm. ak Dakar sëñ Fallou Fall maam Cheikh Fall jël ko yebal ko Gabon ci sëñ Touba boole ko ak i addiya moom la sëñ Moussa Ka di wax naan euh, sa ndaw da daan dem ba Gabon di yóbbu ay euh, di da dem ba mhm. waaw di yóbbu ay addiya ay saako yu rang mhm. waaw donc moom sëñ Fallou Fall moomu la woon beneen bi nag mooy Cheikh Ibra dem ci tubaab bi nag xam ni lii ñu jàppee sëñ bi ba génne ko ndax sëñ Touba bi ñu koy génnee. conseil privé bu ndar ab tribunal la. daa tudd conseil privé mais ab tribunal la. donte nag ci sur le plan juridique ak sur le plan technique du du woon tribunal boo xamante ni respecté na ak doomu doomu adama mhm. ndax dafa am nu ñu koy waxee. Mhm. ni tribunal dafa am nu mu war a tëddee pour mën a àtte boo xamante ni. day mhm. nekk àtte bu maandu. donc loolu amul mais Cheikh Ibra xam ni nag ay tuuma ak i sos ak i jaxase. moo tax ba tubaab bi jàpp ni moom autorité am ak àdduna gi muy wut Serigne Touba da koo menacé. Cheikh Ibra di dem ci ñoom di leen leeral. ni leen kii li ngeen tax jóg li leen tax a jóg ak li ko tax a jóg bokkul. moom mhm. yàlla kese ko tax a jóg. alaaxiraa ko tax a jóg. donc di dem ci ñoom dem ci ñoom ba ñoom ñu taxaw seereel Cheikh Ibra wax ni Ibra Fall est un fin diplomate. ku mënoon a maslaa la. <laughs> il est plein de prévenance pour les représentants de l'autorité nee na fu mu mësaan a di gis kilifa nasaraan dana la jox sa wàccuwaay te tey rawul woon ki mu bëgg muy sëriñ Touba ki mu yaakaar di sëriñ tubaa mhm. ki mu doon wut ngërëmam muy Sëñ Touba Touba bee ko jàpp yóbbu ko waaye terewul Cheikh Ibra di masla ak ñoom ndax loolu Sëñ Touba wax ci ci masalik mhm. bëtub charia boobu mhm. donc bi bi loolu amee. Mhm. doguma la mooy li Baye Modou wax. sànq ni mu doon maslaa ak ñi mu bokkal diine. ca Ndar noonu it la doon jëflante. très bien très bien ku amoon maslaa la. Mhm. bi loolu amee nag Cheikh Ibrahima wutoon ay avocat mhm. bokkoon na ci ku ñuy wax Dukkure mooy xanaa mu ngi ci euh, Minanul Baaxil Xadim bi. ak Carpo. nga xamante ni ci ñoom la ànd di jaar ci ñoom di dox ci tubaab yi ba tubaab yi xam ni. ndekete ka kan ñun dañoo jaxaseeg sëñ bi waaye li tax a jóg sëñ bi ak li ñu tax a jóg bokkul ci loolu la tubaab bi sukkandiku def révision du procès ba ci sababu zaayir loolu dëppoog nag ndogalu baatit bi nga xamante ni sëñ tubaa war na cee ñibbisi mhm. donc ci la sëñ tubaa ñibbisi donc muy wane ne Cheikh Ibra euh, noonu la taxawoo ci wàll wu yoon dem ci dem ci dem ci dem ci tubaab yi di xam d'abord li nga xamante ni fan la sëriñ Touba nekk ak xam dara ci sëñ bi mais dem ci ñoom di leen leeral mbirum sëñ bi ak li tax a jóg sëñ bi euh, ñetteel ba euh, mu wuti avocat lu mel na ñoom Carpo ndax Carpo dafa nekkoon avocat ba pare euh, doon def politique soxla woon falu waaye waa Ndar xamuñu ko mu ñëw ci maam Cheikh Rafal ngir maam Cheikh Rafal jàppale ko mhm. foofu it Cheikh Ibra wane ci maanaam euh, li ñuy wax démocratie. Mm-hmm. nga xamante ne c'est la loi de la majorité. ñi ëpp ay ci ci ñi ëpp lay carte mm-hmm. ñoom seen baat moom mooy jib Cheikh Ibra moom lenn bëgg-bëggam la mooy sëñ Touba ñibbisiwaat donc mu sartoon teg loolu Carpo mm-hmm. jàppale Carpo ba Carpo fa falu donc euh, loolu daal euh, ci tënk mooy doxalinu Cheikh ak justice ci Ndar waaye yëmu ca Cheikh Ibra da doon poser ay acte de ay acte de justice ndax euh, soo demee ci jamono ji li ñuy wax naan code des obligations civiles et commerciales yoon ci boppam moo tëral nit ak moomeelam ak jëflante yi muy jëflante ak waa réew mi nan lay tëddee Cheikh Ibra amoon na notaire mm-hmm. ba suuf yi mu doon jënd daf notaire yooyu ñoo ko daan topp ba defal ko titre foncier waaw boo demee ci rapport bi tubaab yi def nee nañu treize fois propriétaire mhm. normal notamment à Saint-Louis Louga Géoul Ndand Thiès Diourbel Dakar mhm. <laughs> donc yooyu yëpp nekkoon ay suufu Cheikh Ibra yoo xamante ni da ko daan def titre foncier mhm. te ba tey titre foncier yooyu ñu ngi dox waaw am na ci yoo xamante ni réer na euh, mais am na ci yoo xamante ni moom moo ngi ak njaboot gi euh, Cheikh Ibra it jëloon procuration joxoon ko sëñ Modou Lo taaw sëñ Mbay Lo Maam Mbay Lo nga xamante ni yenn yi mu daan doxi ci wàllu yoon moom la daan yebal mu ko daan demal xam nga lool it waaw moo nekk nii waaw mooy taawu sëñ Mbay Lo donc ca yooyee jamono ak ni nga xam nit ñi ni ñu ragalee woon yoon ak ni ñu ragalee woon lu jëm tubaab Cheikh Ibra moom avant ma mayoon na ko mu xam ni lii ci àdduna ak doxalinu àdduna mënta ñàkk mhm. mu jël ay ay ay ay ay avocat jël ay notaire alalam yam doon am ak jëflante yam doon jëflanteek euh, doomu aadama yi mhm. mu tënk ko ci këyit mhm. ba mu dëppook yoon nga xamante ni ba fii ñuy suñu jonni tey nii mhm. suuf yooyu ak njabootama ko moom kenn mënu cee teg loxo li si gën a yéeme njàngat mi si wax doon koo xamante ni buñ koy jàngat nii si saayir doon euh, ku jóge au fin fond du Baol ñëw si ñii nga xamante ne ñoom lañ tuddee euh, en tout cas des des citoyens instruits mm-hmm. nga xam ndar jamono jooju mm-hmm. mu am ak ñoom njaxasoo googu mm-hmm. ba gën leen a jekku sax seen jamono loolu lu yéeme la si si si maam Cheikh Ibrahima dégg nañ bu baax li ñu waaw xam nga xam nga ndax jamono jooju mun am si avocat am am si notaire am am si nangam ba pare moom euh, jógewul si ñoom moom dafa ñëw si ñoom di dox xam mission waaye dem ba gën leen a jekku waaw boobu day doon wane defaruk sëñ Tuubaa rek loolu doon wane si ndar ndax euh, dafa mel na ndar moo nekkoon capital bi te it moo nekkoon marché boo xam ne fi am sa marchandise bu valeur fa nga ko yóbbu di jaay <laughs> Cheikh Ibra looloo waraloon Sëñ Tuubaa yebal ko fa pour wane ak defaram waaw te it ndar euh, xëy na thème bi moo ñu tënk muy wàllu justice mm-hmm. mais lu yaatu la mm-hmm. lu yaatoo yaatu loo xamante ni téereb Jazbul Murid fa la ko bindee doon ci tont na ñaari foré Euh, Cheikh Ibra taxawalon fa économie. Mm-hmm. économie bi moy lan mbayum deur ak réseau de boutique. waaw euh, demoon na ba Cheikh Ibra yi ak yewutem ak euh, intelligence am. Mm-hmm. yi beugone diko mm-hmm. Euh... na ci xissa sax ñu ni daana am ñu ci jël congé ñëw daan nek ak Cheikh Ibra pour wané ni dimension bi mu comme ni nga ñii ñoo nekkoon ci wàllu société bi. ñoo nekkoon aristocratie bi ñoo nekkoon ci kaw. nga xamante ni ñëpp ni ñoom lañ bëgg a mel. Cheikh Ibra jóge ci ñi nga xamante dañ leen a jàpp ñoo ci gën a suufee. ñëw jaxasoo ak ñoom. Mm-hmm. ñëpp bàyyi lañ nekk ñëw fekk si ko kon day wane defarug sëñ Tuubaa rek. <laughs> dëgg la day wane defarug sëñ Tuubaa sëñ Mamour. <laughs> Euh, mu junj ko am solo di euh, Serigne Fallou Fall mi nga xam mooy taw maam Cheikh Ibrahima Fall moom ganee jamono Ndar mm-hmm. euh, doon citoyen français nga xamante ni am na. possibilité moom di génn ci réew mi di dem fu ko neex euh, euh, daan euh, seen suñ tubaab Cheikh Ibrahima daan ko yebal Gabon gannaaw bi nga xamante ni gëstu na si ay gëstoom ba xam ni suñ tubaab mu ngi Gabon xam ngeen nii ren ni ñu ko waxee ci la am téeméeri at ak benn gannaaw biñ ko noppee gis ci ci jamono waaye te bis bi ñu dara jàll ko Serigne kon Moussa Niang mi nga xamante ni kenn la ci maam Cheikh Ibrahima Fall di ci Cheikh bax Serigne Talla Niang mi nga xam sa mom la ñu ci element Serigne Mamour bu ñu dogu duggu a ci Serigne fallu Fall ak Serigne Moussa ñang mi nga xamanteni ñom leen dëppee bis bi ñu and ak kon wa régie yi sa borom bax bañ bàyyi lañ lepp lépp fekk Cheikh Fall loolu rek la ko sa borom bax mo dem bam bàyyi lañ lepp lépp lépp fekk Cheikh Fall di fekk seen mamour Cheikh Fall lool loolu la demee Serigne Moussa ñang nak mom ma nga juddoo suñu lay kam wala ah, ba it mooy ndeyam masa besar dengan ñu ngeen moo yaayam si léegi la juddoo fa la yaroo wax na ne ba mu ñëpp maam Cheikh am na ñaar ak ak ñun ñett bàyyi ko si léegi la fekk maam Cheikh Rafaal kees loolu daal moom ko ci xam ak ak bëgg ak bëgg yi mu jël bis bis bi di maanaam taalib maam Cheikh Fall yi ndax yaakaar naa ne daaw am na am na am ku ci mag ci yoon wi la ñu ko wax suñ dagga tëb loo suñ dagga tëb loo moomee moo jëkk maam moo la maam Cheikh Fall yebaloon kees moo ko jiitu maam Cheikh Fall sax kees ci ndigal maam Cheikh maam Cheikh ay taalibe soxla ko mu dëkk leen foofu yi mu ba nekk ba nekk kees moo moo moo moo tudd woon daaw léegi bi mu tudd solo la nee na maam Cheikh Rafal ba mu ko nee mosaloo indi li mu li mu yëg laytun Bàmba loolee nag ci la nekk saa koy dëgg dëgg ñu ko saa bu xëyee jaayante boobee mu indi benn feddali ci kees ba maam seen Faal jógee kees nag ñu njaarim mu ànd ak taalibe yi ba ba ñu njaarim ci la maam ci la maam seen Faal nag ñu ñu la ba mu mu amoon mbir moom saa su nekk ak ak laas moo ko ko jox ah, waaw loolu ndax laa ko dama ko laaj sax euh, suñu saa di koy leeral maa ngi toog nii waaye bés bu yénu ko kees bés bu njëriñ la ko yenoo bu gàll ngurdu ga la yenoo kees wut si moom njëriñ dana jot si Moussa nee na Daawuda Siraan bés bi dafa gën a siiw kët waaye gaar ngur la gaar gaar ngur ga mu gën a diis te booba si Moussa nee na boobu lañ boobu lañ tàmbali juma njëriñ ji Seex la jël ñaari koppar si mbam jël ñaari koppar yónnee ko maam Seex na ko nit kim kàttanam maam Seex na dajale nag ba am aw waxande xal xal bi xëpp ko ci nii rek da ko da ko rimale nii da ko rimale nii wax wax loo fees mu tëj ko ci yooyu yooye yooyu jamono moomu gi suñu bopp bu baax fu neex waaye dem ak fiif wax ne woo su ko su ko dugalee ci saxaar gi des ko seet ba xam lan moo ci nekk te la ci ku euh, may suñu bopp tëj bët noonu waxee nee na si Moussa nee nag ba mu nag maam Cheikh nag ku xarala la boo ku mu woo dañ wax nag ndax at nga waxande wi damaa bëgg ko damaa bëgg bi njaareem boo nee waaw at naa ko dañ wax yéen yéen dañ wax ko sa bopp soo ko yëkkatee soo ko mënta yenn soo ko mën a mën ko àdduna ko soo ko àttoon da nga ko war da nga ko waneel sa bopp ne ba mu wooyee Baye Moussa boo ñëwee da ko ne ah, Moussa ko faal man at nga wax ndewee ah, damay damay dimbali bopp nag dimbali ñëpp nag ah, day am loo xam ne lii ak dégg da ciy baax ba ci ba ci feneen mu mu ne ak ak ak ak dégg da na ku bëgg dox diggante ak moom faw xolam daan daan am na mu def waaye si Moussa da ko ne wax nañu boo setee wicc wicc ba doon ci dara ci dimbali ma naa ko attan loolu loolu loolu loo maam si yàlla. Seck Saliou si wàllu réalisation bi jërëjëf suñu jiile Abdou Khadre Ndiaye ci wàllu son bi ak vidéo bi Jazboul Mouride xam ngeen ni li ñu waxtaanee boobu ba léegi mooy euh, lambinaas bi nga xëy ni. Serigne Cheikh Bintou Fall mooy amal màggal gi incha allah ren di juróomeelu édition bi euh, fii si euh, kon Masaalikul Jinaan te nag loole du dara lu dul fàttaliku euh, ñetti fan yi nga xamante ni maam Cheikh Ibrahima Fall ganale na ko Serigne Touba si këram gii si Lambinaas nga xamante ni tey jii ngir tegtal bi gën a leer mooy fii palais de la République nekk. Euh, building administratif nek fa primature nek fa di périmètre bo xamanteni lepp lépp suuf yi euh, maam Cheikh ibrahim Fall won di fatali ni l'ambulance bi sax nenañ nañ tur bi mu jóge mooy rue de l'ambulance manam yoon wi nga xamanteni moy yoon ambulance bi euh, ñu dem ba mag ñi di wax l'ambulance ci ah, foofu nak comme li ñuy wax. euh xamna ni dinañ ñu won photo bi sax ngir mu xawa tarikh mom dafa baaxoo wuté wuté deug la. lolu version la. Mm-hmm. que ni yoonu ambulance bi. Mm-hmm. moo ci daan jaar mag ñi mënuñoo wax ambulance ñu naan lambinaas lambinaas waaw <laughs> waaye déggaat nañu beneen nettali ni mhm. euh, fii ci wetu place de l'indépendance mhm. dafa amoon bërëb boo xamante ni ci yooyee jamono ñi amoon oto dañ mhm. ko fa daan yóbbu di ko gaare déedéet di gaare di bu tàkkusaan jotee ñuy xool kan moo dàqale oto. Hmm, ñu naan ah, lambi oto naas oto lambi naas hmm. am na. booba booba xisa dégg nañ ko. Hmm. Euh, waaye nag ñun kuréel gi. jëmmi fi tur bi jógee euh, photo bi ngir voilà mu ngi noonu ni ñu ko gisee. Ah, ñun kuréel gi. jëmmi fi tur bi jógee. taxu ñoo jóg. dëgg la na lu nu nettali rek ci gëstu ñun màggal gi daal mooy cant gi. gan gi maam Cheikh Rafal doon le moom la ñuy màggal. su amee woon xaar yàlla. wala mu amee woon Mermoz. wala mu amoon beneen quartier ci Ndakaar bi noonu lay tudd waaw waaye eh, pour pour pour pour dalal xel yi rek que ñun jàpp ñu bii version wala bee version waaw jëf amoon na côté robinet laasara fii ci bentali mais boo gisee ñu woote ko fee mooy la fa sëñ Tuubaa wàcc wàcc ak Cheikh la ganale ko dëgg la sëñ Mamour foofu sax la ñuy dugg si ni ñu ko waxee euh, euh, ñu ngi ziar bu baax a baax sëriñ euh, Taala Ñang nii xalifa Cheikh Moussa Niang moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla moom Serigne Talla Niang di jàmbaaru waa kër Serigne Abdoulaye Fall Ndar Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar di ko ziar bu baax a baax xam ngeen ni moom la Serigne Cheikh Bintou Fall dara jaalee édition ren bi waaye Serigne Fallou Fall mi nga xamante ni am na ren téeméeri at ak benn ci moom it taxawaayam bu bu mat sëkk si jamonoy maam Cheikh Ibrahima Fall si maam ba si 14 février. tubaarkàlla jërëjëf sëñ Aliou xam naa li ma wax léegi rek maa ngi koy sëñ si ak Baye Moura Fall nee naa leen tey moom ku am gën tëraan yi dañuy sant bu baax a baax itam ndax ñoom saa rek sa bu ñëwee rek da ngay mën a daal di noos daal ci jotaay bi xam xam-xamu ñu dundal moom dañuy daal di jéem a xool rek nu muy nu ñuy mën a jëlee <laughs> ngir boo liggéey noo am lu mën a nettali sant nañ bu baax ci jotaay bi macha allah indi nañ lu leer indi nañ loo xam ni tam gëstu la képp koo xam yaa ñuy xam ci Cheikh Ibrahima Fall da nga mën a am fóotee mhm. waaye rek euh, dama ñëw ci ñaari parrain yi rek su ko defee waxtaan ci muy Serigne Fallou Fall muy Cheikh Ibra Fall ak Serigne euh, Serigne Moussa Niang Serigne Fall tudd nañ ko léegi moom euh, ki nga xam ne tey xam nga Serigne woote dara dara jaale ko Serigne Fallou wala fàttali ko Serigne Fallou Fall mhm. ndax danaa la wax na la Serigne Fallou Fall dafa yoroon soxna suñu wax soxna Bintou mhm. soo xamante ne bii suñu borom dafa dogal moom la Serigne Ablaye Fall Ndar njëkk a denc ci soxna Serigne Mour Ablaye mooma ne Seex Bintu Fall la ca taawloo moom la ko dippee loolu ko nettali de kon war naa wooteel Sëriñ Fallu danaa yebal bis ba sëñ Seex Bintu ndax moom laa teg dossier Sëriñ Fallu Fall pour mu lijjanti ma jotaay boobu ñëpp seetaan nañ ko fuñ ci YouTube bi kon kon bu dul dara rek war naa woote ngir Sëriñ Fallu Fall Sëriñ Fallu Fall nag bokk Ndar lépp maam Fat Fall Wade leen jur Fat Fall Wade Yirim Mbagnick Wade ko jur ak Assou Ndiaye Njare gendar lañ dëkk hmm. Assou Ndiaye Njare mbokkum Seynabou Ndiaye la Cheikh Ibra nag kër ndey muy kër baayam njaboot gi loolu da leen a topp hmm. mu juddoo Ndar ni nga ko waxee jànge fa bi mu demee ba mat a dem soldaar Cheikh Ibra yabal ko gannaaw loolu lu jiitu mu boole ko sëñ Ibrahima Basel ci tënk rek laay wax hmm. ak Abdoulaye Ndour ñu fekk sëñ Tuubaa Gabon loolu sëñ bi leeral na ko léegi booba mooy bi sëñ Cheikh Ibra Fall xamee gannaaw ba Carrefour Cheikh Ibra campagne ba xam nga ne mm-hmm. ci gud junniy ngurdu yam ko jox mu boole ko ak kan Mor Fall Fëri ak Mor Fall Debbo mm-hmm. yaa ngi fàttaliku sëñ Moussa Sall yu guddi da ciy waxtaan <laughs> ak Mor Fall ñuy campagne le ba mu amee ndam ca mu bëggoon mm-hmm. ñëw indi dossier yu ko xamal ne sëñ Touba ngi Gabon mu daa di bind lettre sëñ Touba moom Cheikh Ibra sëñ bi tontu ko jox ko Ablaye Ndour boobu Ablaye Ndour jébaloogul Ablaye Ndour indi lettre bi sëriñ bi daal di nag yebal sëriñ Ablaye Ndour moomee ak sëriñ Fallou Fall ak Ibrahima Bass ñu fekk sëñ Touba Gabon dafa am nañ fa at kon sëñ Fallou Fall loolu liggéeyal na ko Cheikh bi ci des it mooy bi yoon bi laajee soldaar 1914 Serigne Fallou Fall la sëñ Touba jël ci ndigalam ak sëñ mu Gueye Awa Fall yabal leen ñoo njëkk a dem 1914. Mhm. yàlla dogal na sëñ Modou Gueye Awa Fall moomu mhm. yoroon na rakki Serigne Fallou Fall muy soxna Roqee Fall. Mhm. am te bàyyi Serigne Gueye Roqee ak Cheikh Gueye Roqee ak Aji Awa Gueye Roqee. gannaaw bi sëñ Modou Gueye Awa Fall nelawee lañ ko jox sëñ Mor Niang tay ba mbay moo jur sëñ am di ñang imam mi tey di njaarim xam nga ko kon dafay mel ne kon kooku ba tey ci biir njaboot gi la bokk sëriñ Fallou Fall itam xam ne bi mu demee ba am congé dellusiwaat Cheikh Ibra Fall ci boppam Baye Abdou Niang déedéet Baye Mbaykan Xaali moo nekk li ci làmmiñam dama Cheikh sëñ Modou Moussa Fall ko gunge Cheikh Ibra Fall di leen xool ba mu yàgg mun a ah, Fallou Fall gore hmm. ma ngay dem moom da wóor na ko dellusiwaat te tiitu ko kon xamoon na li xew ñam équipe ba mu jiite woon ca soldat sax 1914. wax nañ ne bañ bam ba mu fa génnee àddina Serigne Moustapha Kane bokk ci magi Cheikh Ibrahima yi nekkoon Njaareem. doomam Serigne Falilou Kane ambassadeur moo ñu ko wax. fii ci Njaareem fii ci Ndakaaru. waaw point euh, Falilou Kane ambassadeur sëñ Cheikh xam na ki ma wax mi ngi dëkk Njaareem. bàyyi mu jeex na tàkk moo jiite woon ña sëñ Falilou Fall yore woon. ba nam fa dese yàlla dogal na nag tey ma nga tëdd foofe ca suufu Europe. ñu ngi ci ko kon kon Serigne Fallou Fall ak Serigne Moussa Serigne Moussa Niang mhm. eh, ndax gannaaw ba mu gisagut Cheikh ba mu gisatul Cheikh Ibra Fall mhm. que Serigne Abdoulaye Fall ndar la la la mooy léppam ba tey jii sëñ ah, sëñ Talla mooy jëwriñ ji mhm. loolu firnde la ci te Serigne Moussa Niang ponkal la mbërum làmb la woon sin laykan la bàyyi ko ñëw fi Cheikh Ibra Fall lam jaayante Cheikh Ibra nag def na ko ndax ba ko maam Cheikh laajo loo jébal moo ko sama doole laay jébaloo doole sama doole laa yor firnde ci ndax gaalu xaalis a def ci jumaay Njaaréem 1918 11 mars koro ab xar xam nga ñu ma ngi wax xar. waaw ak këll bu yaatu. lañ taaj lañ taaj ca Thiès. Cheikh Rafal ne ku ko mën a ku ci mën a ku yor dara na ci def. njaarim la jëm. ku ca sànni dërëm ñu ne di ca sànni di ca sànni ba mag ñi ne ku ca sànni dërëm sax mu rot ndax fees. maam Cheikh laaj lu gaal ñu indi ko mu sotti ko ba mu fees mu tëj ko ne ana ku mën a yóbbu gaal gi njaarim. mag nga fa toog ku ko yëkkati ak ko koy tegaat fa suuf sëñ musaa ñang na bërët jóg na ko sojjat teg ci kawam wàcce waat na waat sojjat teg ci kawam maam Cheikh Ibrahima Fall woo ku ñu wax Massamba Ndiaye Watt jox ko fital na ko toppal ci gannaaw Moussa ñëw lu dox si diggante na ko fital sëñ Moussa di ñukk sëñ Massamba war fas Thiès ba njaareem koro ba mu yenni ko ci biir ci kër gu mag wax ne deru bopp daa xalituk ànd ak gaal sëñ Moussa lii na ko waaw ci njaareem 11 mars 1918 ba ñuy peese dugub yi sëñ Touba ja ca Gébbu Fall bëskil bi nekk njaareem Seera Fall na ko mën a yóbbu bëskil bi Gébbu sëñ Moussa ña ngi ko yenoo Thiès ba njaareem wax nañ ne keroog bi ko maam Seera Fall fële jaare ba jébb mhm. keroog bi ko maam Cheikh di dab ci yoon wi mhm. nee na sëñ Mudu Mbenn daa doon dawal oto ba ne nee na keroog ngelaw li ëffee daa mel ne yëratul mhm. ñu daal di koy wàcc gébb kon lii dooleem la mm-hmm. man nag sama baay moo ma ne xamoon na ko bu baax <laughs> ñetti téere dën la laan takk mais am na bis Baye Cheikh Ndaw sas ma addiya mm-hmm. ma dajeeg moom di ko di ko wax naa ko ñaanal ma côté Tamba la jëm moo ci njëkk a barkeel na ma na mat bala nga mm-hmm. nekk baax sëñ Talla ñangi yàgg loolu tamit xam nga moom li ma la ko am gën <laughs> moo tax moom dañuy bàyyi sëñ moo <laughs> eh, waaw eh, eh. comme ni sëñ Mamoun wax noonu mm. ndax xel day fattu mm. ndax bi may nuyoo sëñ Talla Niang moomu. dama ko caa waroon a boole. moom bu bu ca jiitu wutit war a topp ca ca ñama nuyu. la kon nag maa ngi koy nuyu bu baax. Mhm. di ko ñaanal sunu borom yokk aw fanam. te mhm. wëral ay cëram. ba lépp lum naa la liggéeyal way juróom ba moom it. Mhm. suñu borom defal ko kàttan ba man ko. maa ngi koy nuyu bu baax tey jégalu gi fàtte gi. maa ngi koy jégalu bu baax a baax. waaw maanaam sëñ Cheikh itam dafa am lu mu nu waxoon. nee na jotaay bi moom. ginnaaw dafa tudd jësbul murit waaw ah nee na boo fa demee moom faw da nga ci laal mhm. ci buntu jësbul murit nga seet bunt boo xam ne bii dëpp na la nga nga waxtaan ca mhm. ah ñu dara jaale ko jataay bi ndax nee na ginnaaw eh, mooy turandoo jataay bi mhm. nee daal moom taamu woon daal bu ñu fi toogee rek ñu ñu barkeelu ci waaw moom de lii da di jotaayam moom moom da di jotaayam bu wër sax waaw bismillah Jazbul Murid di fàttali ni ko waxee rek sànq. waaw Jazbul Murid nag Fall mu ngi ko bisimilah. Mhm. waxtaan nañ ci mhm. ay yoon ndax comme ni ko sëñ Cheikh waxe wax nañ ne gàññul la ko taalifi te de boo nee ñeenti fóore ñoo fa newoon Abdou Niang këb du gànjool ak ku ñuy wax Ibrahima Sogg ak ma yaare jum ak Demba Yemu Jóob mhm. ñuy ñeent ñaar ñee moom ànd nañu Seex Ibra ñaar ci des nag ñëwuñu waaye teewut ñu ngi doon gaaral gaaral googee nag mu bëgg leen a dimbali moo taxam mu taalif jës bi mu waaye di ci wax ak ñoom ci biir ci biir wax ji itam waxaala ay dan Seex Ibrahima Fall lépp bëgg yee nit ñi ndax booba xamuñu lan mooy njëriñul sëriñ te maam Seex Ibrahima Fall xam na ne sëriñ munta ñàkk fa taqulaaw taqo ilayhil wasila sëñ Moussa Ka wax na ko bala ngaa dem ci yàlla am kerkera boo bëggee yéeg ci ci étage faaw nga jaar ci escalier yi wala nga jaar ci raas seel léegi nag loolu mooy sëriñ ndax mënoo dem yéeg ci kaw te jaaroo ci escalier yi maam Serapha nag loolu leen doon xamal mu daal di wax ne maroma fil asiyaaxi mën naa fi an lahum indallaahi hmm. nee na bindee fi day ñi ngi romb sëriñ si rek bañ leen a topp te xamuñu li nekk ci ay njariñ ci topp ab sëriñ indi laay fa yàlla nee na xamuñu ko nee na moo tax ñu romb sëriñ ciy dem rek waaye bu buñ ko rombee di demit fu nu jëm mu ne moo aslamoo ñu ñuy sàkku sàkkoo jébbal seen bopp li maa jëm ci la nga xam ne fil basaat yi ne nekk na ci tool yi <laughs> bay luñ dunde mm. wala bay luñ jaay wala anaami ak juri kër yi mm. sàmm ay jur ngir am alal ak fàggu am koom nee ñom nit ñang romb sëriñ ci jublu ci loolu rek moom lay wax mu lu ko waral li ubbi sahawati dunya ngir bëgg rek bànneexi àddina kese moo leen ci dugal mu ne wastaqaloo ñuy soxlawoo albutoon a biir ya luñ def ci seen biir rek ku xëy yaa ngi kër kër yi def ci sa biir rek ba jant tey jiit bari nañu mu gaar so bu xëyee yaa nga naan fu may dépasse fàtte nga dépasse ak loolu di wax. wastaqalool walam walam tastaqilul miisaana te ñee soxlawu soxlawuñu soxlawuñu peese bi yowmal xiyaam ba nga xam ne ëllëg sa bàmmeel loo ca fekk yaa ko ci jëf sa sa balance bi yowmal xiyaam lu ca tegu yaa ko ci jëf nee na ngay fàggul àdduna rek fàtte balance bi yowmal xiyaam loolu maam sarafal di wax mu ne walaa yéen fa u saalika inde nu sooxi ruuy te loolu du leen njariñ de bis bu ak ruuree rot mais bis bu ruu gi génn loolu du la jariñ dara hmm. wa indi def na fil xabri ak bis bu ñu lay denc ci biir bàmmeel nee na loola du la fa jariñ dara la nga jëfoon rek jëme ci yàlla moo la fay mën a jariñ ab ab jàjj la nag ak ab soññ ci ci bokki taalibe yëpp tàmbale ko ci sama jëm ji waaw wal asri ak ci bisab pang ba bis ba suñu borom di pang bindeef yëpp ñu jëm yowmal xiyaam لقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم دي لول سون بروم موكو واخ بيس بوبا رك موماتا فاغول من مرول اسياخ من الصفاء ونور القلب نيني غي رومب سيرين سي اك لي نيك تي سيرين سي اي سافرا سافرا اي دن اك ليري خول sëriñ bi mooy mooy foog sa xool raxas ko ba mu set mu duy koog leer ba mu fees nee ñoom nag ñu ngi romb sëriñ si ndax ñàkk xam loolu rek wastaqaloo ñuy soxla woo maa la nga xam ne finis ni nekk ni ci jigéen ñi wasalaatina ak bóorantu adduna yi ña ngay sàkku ji rek ndaw su rafet ak ak ak ak gànjar gu leen jox ak lu ndaw si bégee rek fàtte nag yow ma fi am ah. nee ñu ngi koy def nee na topp yi àdduna yi nag mbuurante àdduna yi nga xam ne mënuluñ seen bopp dara dañoo lot sax seen mbir loolu de mooy li xew tey te nee na ñooñu suxmbati iblis ñooy àndaale iblis te loolu dëppoo na fekk li sëriñ bi wax ca xaaloo li yërkan mm-hmm. hmm? dëgg la fa kay fa yëpp usuni ubul utaami ilaa jawaari man durruhum raw du sayaatini sëñ Tuubaa nee naan naka laay mën a buure man ngir sopp rek pojoxitam àdduna dem di dëkkaale ñii nga xam ne seen kër yi mooy dërëb saytaane kon loolu mooy li maam Seex Ibrahima Fall fii waaw mu ne wa baaduroo ñuy gaawantu nag ilaa maali jëm ci dajale alal rek dajale alal rek nee na ñuy gaawantu ci dajale alal ngir ñun mën a nekk rek di boroomam koom ñu ne diw di boroom alal la te yóbbuwut fee dara waaw wal ukaami ak i kàngam fi dunyaa um ci seen atum àdduna ak nekk boroomi pal maanaam li ñu naan ay boroomu ndomb loolu rek la ñuy wut ngir rek maanaam seen dund àdduna mën a neex ak ñu mën a am darajay àdduna nee loolu rek la ñuy wut mu ne walam yet la boo te sàkkuuñu riddaalaaye ngërëmal yàlla wa rasuul yi ak ab yonantam mm-hmm. sàkkuuñu ngërëmal yàlla sàkkuuñu ngërëmal yonante bi mu ne waaye day defuñu ko de waaye wa wasaaroo danañ mujj mhm. fastan di aji wéet di kenn li an fa suum ñeel seen bopp mhm. nee kenn ku ne da nga mas wéet yow dong si biir bàmmeel kenn du la fa wéetali ku dul sa jëf waaw mu daal cee teg ne wal iyaala wa isaa takfa bi xawli jiraanihim wal masjidu xayra udaal asiyaaxi mu ne wal iyaala njaboot ga wa isaa takfa doonte doyoon na kese kese kese bi xawli jiraanihim ak waxi seeni dëkkandoo wal masjidu ak dem ci jàkk yee ka ñëw xayru daal siyaax ci loo ànd lu njubalug sëriñ si bu fekkee ne loolu rek doy na a ah, nee na kon kay bu fekkee loolu doy na sunu borom fal ah, lam yursilillaahu rusulan kon yàlla du yónni sax ab yónent bu loolu doyoon yàlla du yónni ab yónent wax yi ñi nga xam ne ñooy borom wax yi ñoom la suñu borom di wax yu yebal jibril mu wax lu leen wal quraanul karim kon sunu borom du wàcce alquraanul karim wala hadis kon hadis bi du ñëw hadis yónent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu fekkoon ne loolu rek doy na kon yii yëpp du ñëw mu ne waxaala wax na ay dan ba tey moom maam Cheikh Ibrahima Fall ne fa naa su nit ñi de marooñ na ngay romb bil asiyaaxi ci sëriñ si wala mu yel tafitoo te geestuwuñ sax ilayhim jëm ci ñoom li jaxaleem ngirug réere seen naf al asiyaaxi njariñal sëriñ fil xubóor yi ci biir bàmmeel réere gu ñu réere njariñal sëriñ moo tax ñu romb sëriñ bi rek di dem moom lay wax noonu mu ne wayus li ñuy sàkku li la nga xam ne fii niswaay nekk na ci jigéen ñi wal misaay ak poyi àddina yi wattaay mi ak ay ñam wattale ko ñu bàyyi bi ablil asiyaaxi ci jàpp ci buumuk sëriñ si wayeti si loolu na ñuy ñuy jokku ilal maa yi jëm ci wut ndox mu neex muñ naan wala boisson wala naan gu neex gu mën a doon te nee na mooy naan ko nga xam ne yësiru day mujj rek xawran di ngiro ci biir suuf rek loo mën a naan ci suuf la jëmaat rek da nga bàyyi ko fa rek waaw mu ne wa ilaa taami ak ñuy sàkk aw ñam wu neex wuñ def ci seen biir la ñam wa nga xam ne aaxibatoo ak mu jëm xaa itun ay sobe dong lay doon war a ak ngelaw kese ñuy sàkk loolu doona awaamiril asiyaaxi ñu wàcc fële ndigalal sëriñ di sàkk loolu rek maa xidmatiim ànd ak di liggéeyal sëriñ si lawum ñeel leen te ne ko looloo day liggéeyal sëriñ bi baaxin aji des la xadan ëllëg xadan ëllëg saako waaw allahu akbar bind la boo xëy ni moom yaakaar naa ne képp ku ko lii rek defar na société sëñ sëñ Cheikh moom daal macha allah bàyyi euh, Euh, Baye Modou. xam naa ni moom waa si waaw. Uh-huh. sëñ Demba baax a baax eh, xam naa ni ñàkkul ni dinañ si ñëw ay jamono sax. gis naa ne téere bi sax am na ci koo xam ne. def naa ci uh-huh. ay kilifaam la bu ko gisee. waaw gis murid bi. waaw mu uh-huh. traduire anglais. waaw xoolee daf ko ne waaw ki ki bind lii waxuma la am réew waaye man naa yilif àddina. wallaahi dëgg la ki wax wax ji mën naa yilif àddina. te lii da ciy feeñ. maam wala si doole moom moom. Baye Modou spécial jël. sama sama sama bi ma naan jàngal waaw kii ma lay wax. Mm. du murit sax. Mm-hmm. Eh, téere yu bari jàngal na moom. Mm-hmm. waaye biñ koy jàng. Mm-hmm. dafa dem ba mu yàgg. mu ne ma ah maanu de baax na moo ma ko waxal boppam. ma ngi ciy dëgg maa ngi ciy neen. ma ne ko ah. mu ne ma téere bi di ki ko liggéey. su ko neexoon du sukkandiku ci kenn. ak wér. te wallaahi du murit fi ñuy daanalee rek ci tam bi mu ngoog euh, mooy njàngat mi. ndax boo wax ne waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall et la justice. mooy ab jullit. nan lay dundee ci république laïque ndax ñoom nit diine lañu atte war a atte wa charia dund ci réew moo xamante ni réew laïque la euh, am na ayab al boo xamante ne alxuraan maanaam muhammadun rasulullah walazina maa wa ashiddaau alal kufaari ruhamaau baynahum tarahum rakaan sajada mm. yabtaxuuna fadala min allahi wa ridwanan siimihum fi wujuhim min atari sujudi ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرعين أخرج شرعه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب زرع ليحيز بهم الكفرة وعدله الذين آمنوا وعملوا منهم مغفرة وأجرا حزيما دونك تسورة واه واه تسورة الفتح لمجنت إيه؟ محمد رسول الله والذين معه أشده على الكفار أمن يقوي تكني فوق سبيه فرد غاور الجل جاسي ولا فتال دلتي كوم muy déggin wu gàtt. Mhm. ci ci ci diine. Mhm. waaye Cheikh ibrahim wan ñu ne. Mhm. ab julit bu melé na mu war a mel. fu mu dem dana dàq kéefër. ndax suñu démé ba tuba bi ci sen euh, fiche euh, de renseignement bi. naan ce qu'on peut attendre ou craindre de lui. boobu mam Cheikh Rafal la ni wax. ñu ni il est bien difficile de répondre à cette question mu ni tontu loolu lu gëna a la lu jafe la. Euh, l'attitude de Cheikh Ibra Fall a toujours été irréprochable. Mhm. Néna doxalinam digganteem mak autorité française amul dara luñ ko mën euh, jam. jam. Euh, ñu wax ni il est toujours il s'est toujours incliné devant les ordres de l'autorité française Molem mhm. ndigal yi ko kilifa tubaab yi joxone Cheikh Ibrahima jëfee na ko. waaw waaye nag lii dëggal ni nak ñom xamoon nañ ni ab jullit la. Mhm. ñu tekki ni ni mais il y a lieu de se méfier de lui hmm. ñu ni nag ku jara tey ci mbiram la hmm. comme mboole mouride. Hmm. Ah, Ñom ñi nga xamanteni ni lesquels sont prêts à obéir aveuglément aux ordres quel qu'il soit du Cheikh Ahmadou Bamba ñu ni lim nuy jox jox cër mom Cheikh Ibra Fall li muy euh, jëfe suñuy ndigal yëpp yëpp ku jara tey ci mbiram la ndax mom ak mouride yi nga xamanteni ñoko top. ndigal li leen Serigne Touba jox dinañ ko jëfe donte dañu leen woon dal leen ci kaw tubaab yi hmm. dinañ ko jëfe kon Cheikh Ibra taxawaayam firndeel na ni hmm. bët boobu moo wax ni sëñ Touba wax na ko ci masaalik ni moom nga war a xoolee mbindeef yi muy bëtu charia hmm. taxawee na ko waaye terewul nag muy jullit boo xamante ni euh, dëkk na ci république laïque jëf respecté wàccook yoon ba pare ñi nga xamante ni ñoo ngang nguur gi taxaw seereel ni ne moom di jox ñu ñu cër waaye lim ñuy jox jox jox cër xam na ni pas-pasam bu ko sëriñam digaloon mu dal suñu loolu moom moom am moo tëj lépp te te te nag euh, fi ma ci daanale mooy mm-hmm. euh, incha allah sëñ euh, Cheikh jërëjëf mm-hmm. sëñ Cheikh Diop xam naa ni bis boo ku fa ñëw lii yëpp dinañ ko fa gën a yaatal incha allah di wàllu ko thème bi nga xamante ne nuyu sëñ Demba Faye bu ko sek moom it jàmbaar la ci kuréel gi kenn ci keno yi keno sëñ Xaadim Njaay sëñ Xaadim Njaay di ko ziar bu baax a baax moom day ndeysaan sëñ xaari Njaay lambinaas mi nga xamante ni mm-hmm. euh, yaakaar naa moo nekk si bopp kuréel gi di mm-hmm. jàmbaar loolu wax dëgg yàlla di ko ziar bu baax a baax euh, euh, waaye it ni ko waxee bis bi ñu fay rendre hommage El Hadji Sidi Lamine Niass hmm. euh, ci euh, Sénégal ak si àdduna kenn dootu ko nattable macha allah yàlla suñu borom yokki leeram euh, te yokku ko yërmande hmm. sëriñ Aziz Mbacke ni nga ko waxee Abdou Aziz Mbacke mu hmm. sëriñ Modou bu Dieng moom it incha allah ñoom ñëpp ñu fas yéeneen fa rendre hommage ndax nag seen liggéey société bi ñëpp gis nañ ko di it sëñ Mamour kon wax ni it Jazboul Mouride bi moom Jazboul Mouride bi spécial la kon Lambinaas tàmbali na bis ni ki tey si talaate gi di si ziar bu baax sëriñ Cheikh Bintou Fall di ko si sant ndax gis ngeen sëñ Njaga xam naa ni moom tey moo tax waxtu bi moom fàtte na ko sax mm-hmm. gis ngeen lii nga xamante ni tey moom la ñu waa kuréelu Lambinaas teewal fii si Lamp Fall di gis ngeen bernde yi tubaarkaala yaakaar naa ñoom Baye moo war Diagne ak ñoom ñoom Abdou Ndiaye afdalu taamu lax mu pët pët kon bari ku la laylati yaa mati di ko <laughs> loolu kii kéemaan la loolu xam naa ni dañu mu ngi noonu waaye daal bernde yaa ngi nii tey uh, yaakaar naa ni waa waa waa waa kenn ko fi ñaañi ndax waa ñu nag yéen sax ñoom soxna joojoog uh, soxna mareetoog soxna moomeeg ñoom maam jaarutoog ñoom soxna mbooja yaakaar naa ni sax dañoo xar jës bul murit tey waaw kon maanaam maanaam berde berde yi li ko waral di si sant seen Cheikh Bintu dafa wax ni euh, laminaas bisub mbég la bisub feet la mu ne na ngeen tàmbale mbég ma ak feet ma na ca émission ba jëm ca bis ba waaw di si sant nag soxna soxna Mbène ñaa soxna Fatou Fall na Fatou Diop ak soxna Dior ñi nga xamante ne ñoom la sëriñ bi jox ndigal ngir ñu indil ñu berde yi ba pare toog xaar ñu nekk ak ñun si jotaay bi ak mboolem euh, public bi nga xamante ne dañoo bàyyi seen yitte yëpp ñëw fi di leen ziar bu baax a baax sëñ Badara Dia euh, sëriñ Moussa Fall di ko ziar bu baax a baax euh, sëriñ Assane Faye sëriñ Ousseynou Faye mhm. ñu ngi sëñ Moussa Faye euh, sëriñ Youssou Dieng mhm. sëriñ Cheikh Diop ak Baye Modou Fall mii nga xamante ne tey ñoom ñoo ñu doon bégal si émission bi mhm. waaye di ziar bu baax sëriñ Bamba fay sëriñ Mame Cheikh Fall sëriñ Daouda Fall sëñ Fallou Fall sëñ Mouhamed ak sëñ Jili Fall ak mboolem uh, ku ñu fàtte rek ñu ngi koy jégalu di wane ni daal mboolem kuréelu Lambinaas teew nañ fi ak ñi teewul uh, Serigne Khadim Ndiaye maa ngi koy wax sànq Serigne Fallou Diaw uh, sëñ Demba Sow Demba Demba Faye Demba Faye bu ko fekk di leen ziar ñoom ñëpp ndeysaan seenu taxawaay di leen wan ni kon bis bi incha allah sëñ Mamour le 13 lay doon di gaaw bii ñu dëgmal incha allah le 13 avril 2019 fii si Massalikul Jinaan ñu fas yéene yendu fanaanee sant Serigne Touba maam Cheikh Ibrahima Fall ci lii nga xamante ni moom la ñu defal programme bi programme bi bisimilah ci bi ñu ñëw ñu tàggoo waaw door 9 heures uh-huh. ñu ubbee ko njàngum alxuraan ak xasida uh-huh. Uh-huh. yendoo ko ay waxtaan mboolem thème yi nga xamante ni ak junj yi ñu def fii ci émission bi dinañ ko yaatal foofu uh, ak yeneen eh, boromi xam-xam uh, dina am zikrullah guddi gi nag uh, cérémonie officielle bi ñoo ngi koy tàmbalee à partir euh, de vingt heures waaw vingt heures jàpp vingt une heures donc gannaaw gee mhm. su ko defee nag euh, ñu fanaane ak zikrullah sëñ bi di ci woo nag mbooleem euh, kuréel kuréelu zikrullah yu yu yu Cap Vert incha allah waaw ak mbooleem taalibe ak fépp rek kuréel yëpp fépp rek kon jaaw bu baax a baax sëñ Mbaye Diaw Baye faal euh, soxna maam Cheikh Diop ñi xëy ni ñoom ci kuréelu jës bu nu lañu bokk mm-hmm. saa su ne ñu koy ànd ak ñoom di leen ziar bu baax a baax sëñ Mamour Euh, euh, kon euh, jotaay moom jeex na tàkk macha allah di xaar bisu laminage bi te xam ni bernde moom tàmbale na. di ziaraat waxtaan bi yëpp nekk. ñaan yàlla ci bi. ñu day ci allah lépp luñ ci yéene ak lépp luñ ci bëgg sa sa amoon defal na ko. di ñaan bu baax a baax Serigne Cheikh Dund suñu borom doon ko. ñu barke ci barke. bis bu màgg bi nga xam ne ñu koy séntu. di ziar bu baax moo la njaboot Sëñ Tuubaa yëpp nag. beneen ñu ak ziar baax sëñ boobu baraka moom Cheikh Mouhamadou Fadal ci jëf ju ji jëf ju rëy ji xam nga ne léegi ci suba la gis ne mhm. yóbbu na addiya ci université Touba bi. Mhm. tolloo ci trois cent treize millions. tey nañ ko euh, yóbbu na ko tey ci suuf. li mu jëy suñu li mu jëy suñu. <laughs> ci ay millions. waaye lépp ngir tàmbalee ko nag. wallaahi waaw ay sëñ boobu Cheikh Rofane maam. ndax sama maam Seydou Fall si ñoom Moussa Fall. waaw mel na ne kon fa ma am daan jaar ak jaar ma. waaw jaar yàgg fi waaye boole njabootu Cheikh Rofane Fadal. Eh, di ziar ñëpp nag euh, sëñ sëñ sëñ Aliou Badara. alhamdulilah Baye Modou kàddu yooyu tàggoo rek kay gàtt rek. alhamdulilah uh-huh. sant Sëriñ Tuubaa Cheikh Ibrahima alhamdulilah ah tey woo nag ci suñu xew-xew bi mhm. mboolem jullit ñëpp mhm. bàyyiwuñu kenn di woo mboolem taalibe yi góor ak jigéen mag ak ndaw mhm. ak mboolem daayira yi ñu ngi leen di woo ca bis ba ah fii nag moom ab tàmbali la rek képp ku bëgg nag lu dégg lu gën a yaatu it ñu ngi lay ñaan nga teew ca bis ba rek mm-hmm. te képp ku fa teew ñu ngi ñaan suñu borom faj sa aajo mm-hmm. ci barke maam Cheikh Ibrahima di euh, ziar bu baax kon mbokk yi nga xamante ne ñooñu doon jàppale ci liggéey bi tey moom Jazboul Mouride euh, daan na ala daw mi waaye tey moom da cee raw mm-hmm. tey loolu yëpp nag euh, sëñ Cheikh Bintu di ko ziar baax di ñaan mu yàgg fi loolu tànda wér nee naa ko lambinaas moom daa waroon doon weer wu nekk rek xam naa ni sëñ <laughs> sëñ Njaga moom yaakaar naa ne <laughs> moom sant na bu baax sëñ ma sekk Jaañ ñu ngi koy jeex bu baax a baax nekk fii ci montage bi ndax ñoom ñëpp <laughs> ñoom ñëpp ñu ngi woon mu nga ñoom ñëpp ngi woon ak waajuram wu tedd bi di koy jeex bu baax day a baax ñu sëñ Youssou waaw sëñ ma sekk ñu ngi lay jeex bu baax a baax ak uh, sa jur wu tedd wi di ko jeex bu baax di jeex kon sëñ Momar Diagne si wàllu caméra bi doon ñu si jàppale jeex bu baax a baax uh, sëriñ Chérif Daba Dabo si beneen caméra bi si uh, réalisation bi Serigne Ndiaga Seck Saalihu ci euh, son bi ak vidéo bi euh, Serigne euh, Djili Ndiaye di dollee ñaanal Serigne Cheikh Bintu suñu borom yàggal ko loolu te maa ngi ak mboolem njaboot sëñ Modou Abdoulahi Fall Ndar gi di jaax bu baax a baax a baax a baax nag Serigne Momar Talla Fall moom Serigne Abdoulahi Fall Ndar ak mboolem njaboot sëñ Abdoulahi Fall Ndar gi Serigne Fallu Fall sëñ Fallu Baye ñu ngi koy jaax bu baax a baax sëñ Modou Anta di jaax mboolem njaboot gi rek bàyyiwuñ kenn di ñaan lii ñu teew ko ay déwén yu bëri te wàcc nag kon samedi le 13 avril incha allah Masaalikul Jinaan si Lambinaas wa aaxiru da'waanaa alhamdulillaahi rabbil aalamiin